Sidya Ndiaye ñu ngi nuyu di la dalal. maa ngi yow euh, nga nekk vice-président bu And Gueusseum général de la FGTS. tey jii ñu dégg leen ci ay ñaxtu euh, ngeen di wax ne euh, li nga xam ne dañ leen ko yoreel nañ leen ko jox. ñu bëggoon a xam un peu plus de quoi il s'agit. problème ah, Covid bi njiit réew mi moo décidé woon ne bu Covid bi démarré pour motiver personnel bi dinañ jox prime Covid ñun nag nekkuñu ci. structure étatique yi am nañ fa quelques camarades mais la majorité ñu ngi ci centre et poste de santé yi ñi nga xamante ne collectivité locale moo leen yilif donc ñun aussi agent santé la ñu yaakaar ne bu ñu joxee ñi war nañu jox loolu reconnaître nañ ko ba commencé exécuter mesure mais boo ba léegi mhm. dañu gis ne li ñu laaj pour ñu feeñu ko parce que am na structure yu bëri boo demee ni centre santé bu mel ni ki Wakaam mhm. nga dem Nabil Choucair ak yeneen ak yeneen ci ci biir réew mi feeñu leen donc ñu yaakaar ne loolu du yoon dañ leen war a fay ñu laaj ñu ay liste ñu jox leen liste ñetti ñaar ba ñetti yoon ñu jox leen liste boobu léegi mënuñ fayal fayu dernière minute bu ñu leen wooyee ñu ne ñu xaalis moo am moo doon posé problème mais léegi dañuy xaar loi de finance rectificative loolu jàll na assemblée nationale voté na ko xaalis baa ngi sur place donc léegi ñoom lan la ñuy xaar pour fay donc ñun dañuy yaakaar ne vraiment manque de volonté la boo xamante ne ñoom nañ ko assumer parce que tey conséquences yi mooy suba. Mhm. bu agent côté local yi bougé. Mhm. nga xam ne campagne de vaccination mu ne mu ngi en plein te centre de santé ak ñoo nekk en pole position ëllëg loolu bu bougé bu amee problème ñoom ñoo ko war a parce que ñun semaine prochaine nag pare nañu euh, jóg. mobiliser suñu camarades yi xamal leen ne ñoom dañu war a taxaw tem jaakaarloo ak autorités sanitaires yi pour que li nga xam ne moom mooy seen droit ñu fay ko. balaa ñoo wax ci seen plan d'action euh, tey jii ñu bëggoon a xam ci xayma ñaata la ñu yoreel travailleurs yi ci koppar wala sax ci ay. non am na ñoo xam ne ñu ngi leen na ñoo xamante ne zéro euh, six mois. Mhm. donc loolu te ma ne na ñoo xam ne jot nañ deux mois am na ñu jot trois mois am na ñoo ne donc zéro franc. c'est-à-dire que six mois lëm lañ leen mën yore mais loolu ñoom am nañu état bi parce que man defar naa leen fichier bu leer. Mhm. jox leen ku nekk fi ngay liggéeyee donc ñoom xam nañu mais ñoom lu ñu mënul comprendre ñun mooy. Euh, interlocuteur bi ngay am sax pour crédible pour mu wax la lu leer amul. jot nañ gis ministre la santé nan la demee ba ñii am trois mois ñii am six mois ñii am. non xam nga ñoom ñoom dañuy gérer ñoom ñoo xam parce que ñun dañ leen jox liste complet ñuy yëkkati jox ñii de mois ñii un mois joxuñ ñu ne extra ñoom ñoo xam nu ñuy gérer ñun gérer ñu xaalis mais li ñu moom nañu ko jox parce que am nañu situation boo amee situation na nga nekk kilifa nga yilif ñëpp yow yaa war a jël say matukaay li nga xam ne mooy yoon nga def ko loolu la ñu wax ñun on demande pas l'impossible on demande li nga xamante ne moom moo nekk te ñu prévoir ko te ñoom ñu ne seen bopp déclaré ci plateau télévision yëpp ne jot nañ sept milliards mais sept milliards bu ñu demee boobu jaax ba léegi ñu def loi de finance rectificative ñu war ñu fay mais ñu fay. pourquoi ñuy bëgg ñu bëgg euh, kii affaire ñu ah, noonu ñun du moo tax ñu ne nag fan yii di ñëw dinañ yëngatu parce que ñu ngi yàgg yaakaar Sénégal dafa mel ni boo deful comme étudiant yi maanaam wàcc ci mbedd bi taal ay pneu kenn du jël en considération sa intérêt donc loolu vraiment moo ñaaw. <laughs> Eh, eh, balaa ñoo dugg tamit euh, justement euh, kon xaalis googu ñu war a fay travailleurs yi bokkul ci fon force Covid bi mais ci budget ministère bi la bokk. a si. Uh-huh. ñoom ñoo xam. yi fan la baaxoo ñun géré wuñu xaalis parce que ñun c'est pas notre responsabilité. Mm-hmm. ñoom dañu ne woon force Covid bi day am lu ñu dégagé muy sept milliards. Mm-hmm. ñu dem ñu dem ñu dem ñu dem ñu ne léegi ci budget ministère bi lañ ñun ñu ne c'est pas important ñun l'essentiel nañ ñu fay. dernier moment mi ñu ne ñu LFR la ñu xaar LFR nag voté nañ ko gis nga tabaski bi yi xaar nañu ba sonn gisuñu dara ñu bañ a ñu bañ a indi problème parce que boo boo kii woon ñu ne la waaye xaar yi moo tax ñi am ñu xaar moo tax ñuy xuloo mais léegi nag tabaski passé na dara neuf mois ngay xaar mais loolu mooy la loolu ban façon liggéey la xanaa ñu ngi jox liggéey bi ñoom mënuñu ko ñoom ministère administration bu fa nekk xanaa elle est incompétente wala carence la am mais nañu wax ni ñu dëgg ñu ngi leen di interpellé en débat sax ñu ñëw ñu toog mais vraiment on na comprend pas yow peut-être bi est-ce que jaadu na ñu indi ay perturbation ci secteur bu mel ni santé ak Covid bi ak ni mu mel ak tey ni ñu jaaxle bi est-ce jaadu na ñu ba tali ay foyer de tension dafa mel ni ñoom dañu ne wooy ñii du ñu wax dara parce que tey population yi bu ñu demee ak mouvement population yi dañ leen désavoué mais ñun ragaluñu dara parce que tooñ ñu kenn ñoom ñoo am ay responsable dañu jox joxle ay nombol tànk war a régler problème travail defuñu ko nañu assumer conséquence justement ci conséquence yooyu lépp mu mel ni da ngeen waajal jamono ji euh, taxaw temm ngir ñu jox leen COP. dañuy def benn journée nationale d'action fu semaine prochaine dañuy def euh, mm-hmm. euh, tey laay am réunion amaguma amaguma date bi mais tey tey ci ngoon laay dem réunion nii pour loolu ñu arrêté boobu pour avertissement la aussi balaa ñuy dem mouvement. Mm-hmm. donc journée nationale d'action bi bépp agent collectivité territoriale bu nekk santé dañu lay convoqué benn entre pour leen njiit réew mi pour que mu instruire à ministère de la santé ñu refay ñu suñ suñu prime yi bu ñu ko defulee nag dañuy continuer combat bi parce que ñun ragaluñu dara tiituñu dara ñoom ñoo war a jàkkaarloo askan bi wax leen dëgg waaye mënoon nekk bu ñu leen interpellé nga ne wooy fay naa tant de milliards de bi dafay roo dara dama ne loolu loolu ay ay naxe mbaay yooyu moo war a jeex te dina jeex incha allah monsieur Ndiaye neuf mois bëri na. Euh, ah. ndax jot ngeen euh, ci entre temps euh, def ay yëng-yëngal su ko defee ñu dégg leen ñu jox leen ay promesse wala yéen a ngi soog a yëglu. non yéen en tant que journaliste gis ngeen ne ñun def nañ fi ay conférence de presse service municipal wax nañu lancé sax li ñu naan opération gox yi maanaam comme dañ ñoo fàtte nañ ñu jox lu ñu góox nañ ko gox yi. ba ñuy wax loolu yëpp def nañ rapport force Covid gi. voilà donc hmm? rapport force Covid moom. ñu ngi ñam nga ñu ci waxtaanaat mais ñu wax ci plan d' action bi déjà. waaw mais plan d' action bi leer na dama ne journée nationale d' action moom la ñuy préparé bu ñu fa jógee bu ñu naree grève parce que préavis bi wala ñeneen ko yàggana na. kon yéen ñaar dinañ grève danañ grève euh, mu mel ni euh, dañuy def la sourde oreille. mais ñii ñii da ngay da ngay man man dama jaaxle ci Sénégal ci autorité yi yow da nga gis problème ñu wax la ko lépp lu ñu a def ci suuf def nañ ko pour coow bañ a am mais doo am interlocuteur au moment d'exécuter y a rien. loolu fan lañ ko teg ñoom ñooy ñan mais duñu fonk nit ñi duñu faale nit ñi duñu respecter partenaires sociaux ils sont qui eux pour se croire que ñoom toog seen bureau climatisé di jouer ordinateur duñu toppatoo kenn laa la wax ils ne méritent pas de place ils n'ont pas la capacité de régler ils n'ont qu'à dégager le plancher c'est tout tey jii seen mouvement d'humeur ci contexte bi nga xam ne ñoo ngi ubbi waat euh, CTE yi ban impact lay am ah mais ñoom ñoo war a analyser parce que ñun tey boo xoolee bu ñu ubbee CTE yi CTE yi mooy ñi nga xam ne nañu ba pare fa ñu leen di yóbbu pour traiter leen. Hmm. te c'est tey xam nga ne tey vague bi nu muy demee euh, kenn ñaanu ko yàlla mais nañ dem ba déborder parce que kenn mënul jël population bi yëpp dugal leen ci CTE. Hmm. nu ñu nu ñu nu ñu ah ubbi ubbi ubbi CTE je pense que si tendance bi ñuy gis nii bu continuer dootuñu am benn capacité rek donc ñun ñu nekk en amont nga xam ne ñun ñu ngi privilégier campagne de vaccination parce que vaccination bi boo seetloo tey États-Unis boo gisee moo commencé dominer. Euh, sujet bi c' est que président Biden dafa jël ay mesures fortes pour que ñu mettre l' accent sur euh, campagne de vaccination ñun collectivités territoriales yi centre de santé suñu poste de santé ñoo nekk en position avancée mhm. pour vaccination boobu mais ñoom nañu encourager nit ñi motiver nit ñi respecter nit ñi mais dara dafa mel me pilotage à vue rek mais yooyu ça ne peut pas continuer ñun ñëpp ay kilifa lañu responsable ku nekk fi nga nekk tu es responsable donc vraiment nañ jox nit ñi cër respecter nit ñi doxal yoon justice ak équité mais buñ ko defulee nag ah lu ñu gis ñun la parce que ñun lu ñuy def duñu nëbbatu te ñu ngi nii di artu xam nga yéen ñu jàpp ñu ngi nii depuis dem ñu ngi wax bu fekkente ne ñoom ay kilifa lañu war nañu mën a au moins regarder la situation en face xam ne demee bu ñu demee ba ñu xaar ba affaire bi takk ñu soog a commencé de trouver ay solution loolu nag defe naa c'est pas une solution c'est pas une solution. moom laay wax ni en termes de dégâts tey ba ñu doon xaymaal ban impact la seen paralysie wala seen mouvement d'humeur. mais mais admettons hmm. xam nga ni centre de santé poste dem nañu ba. ñoom ñu déborder ba ñu ne dañuy créer ay espace comme ay obélisque ay kii ñu ubbi ay pont hmm. mais ñun bu ñu arrêté les vaccinations là ban impact la am xam nga ne xam nga ko mais c'est la catastrophe donc vraiment nañu moytu yooyu. ñun ñun loolu du suñu bare loolu du lu ñu xam ne moom moo ñu neex ba ñu def ñun ay kilifa la ñu mais ñun on nous oblige à lutter ku la obligé bëri nag da ngay bëri li ñu daw on va lutter mhm. on va assumer avec toutes les kooku moom na leer. tey euh, wax nga ko sànq ci say biir wax euh, mu doon li nga xam ne mooy rapport force euh, Covid bi gis nga ko ci xibaar yi certainement comme sénégalais yu bëri tey ji nan nga apprécier justement rapport force Covid bi. waaw <coughs> ah, wax dëgg yàlla personnellement. te te dugguma bu baax. ci lecture rapport boobu. donc man jotuma ko personnellement tout ça mais li nga. li ma dëgg de extrait yi gars yi wax commentaire yi. Mhm. ma yaakaar ne rapport bu ñu ko defee wone ay. manquement problème mhm. ay manquement il faut que Sénégal ñuy sanctionné muy positivement muy négativement ñoom force Covid bi naam am na ay experts am na ay kilifa yoo ne dañ leen respecté moo tax ñu choisir leen def nañ liggéey boo xamante ne ñëpp rafetlu leen ko mais bu fekkente ne am na loo xamante ne def nañu naka sa dul noonu. nañ leen teg ci yoon yu redressé leen wala ñu génne leen ci force Covid parce que loolu moo taxoon ñun syndicat dañu ne mhm. ñun waroon nañ bokk ci force Covid yi pourquoi nanguñu benn partenaire social nekk ma benn syndicat nekk ma au ko de quoi mhm. lan la ñuy donc loolu mooy indi yu mel nii maanaam jël li nga xam ne moomoo ko nga dem dugal ko feneen loolu mooy luubal mooy wuruj donc yooyu pour ñu éviter ko il faut ñoom ñu am ñoo xam ne am nañu fit wax dëgg mhm. donc tant que defuñu ko ñu bëgg ñu marginaliser en amont ñu bañ ñu associé ci force Covid te yoon tere euh, ñun suñu woowoon ñoo toog joxe suñu xam-xam parce que ñu yore personnalité ñun ñoo war a extra mais ñoom ñu tëju rek di def ay kii distribué ay ceeb ay kii loolu yëpp baax na mais résultat bi mooy est-ce tere na affaire bi law ah, donc vraiment nañu jox considération personnel bi parce que mën nga tabax ay hôpitaux yu bees jënd ay équipements sophistiqués mais boo amulee personnel boo fa nekk bu ko animé bu ko géré du dem donc loolu il faut qu'on revienne à l'orthodoxie ci santé xam ne liggéeykat yi dañ leen war a au cœur du dispositif pour que ñu réussir suñu campagne de lutte contre la pandémie tey euh, yéen ngeen bokk ci dispositif bu njëkk wàllum matériel ñu nekk ci troisième vague euh, jamono ji ngeen gis ni mi lawee ci dëkk bi ngeen di nekk euh, donc en contact justement avec maladie ndax wàllum dispositif am na matuwaay yu doy. waaw léegi dispositif moom xam nga du mës a doy parce que boo xoolee simplement matériel de protection bi. waaye tey li leen aar quand même muy base bi. voilà donc euh, loolu il faut que ñu góorgóorlu gën a yokk parce que chaque fois boo leen wax ñu ne no matériel maa ngi en place extra te yéen bu ngeen defee tour bi da ngeen gis parce que loolu moo tax souvent ñun dañuy bëgg yéen journalistes yi ngeen ñëw xool. interroger travailleurs yi seen place ñu xam parce que ñun en que responsable parfois que la réalité elle est dañ koy bëgg mais léeg ñu may ñu ñu accéder ci hôpitaux yi mooy doon jafe-jafe. non bu ngeen bëggee hôpitaux yi di ngeen accéder su ngeen waxee da ngeen bëgg a dem sànq di ngeen parce que loolu mënuñu ko nëbb mënuñu jël autorité ñu ne kenn du fi accéder loolu mooy lan c'est un espace public hôpital hôpital public te yéen tamit vous avez parce que tant que defu leen ko tant que njiit réew mi ci boppam xamul réalité bi du sotti donc li ñuy def jeu ak cache-cache chat et la souris loolu moo war a jeex ñu permettre journaliste def seen liggéey parce que ku wane carte professionnelle journaliste laa damay ñëw enquête ak yooyu mais ñu bañ a ko jël de manière négative il faut être positif si on est positif xam ne journaliste bi li muy def nag defuñu pour jeebaane def ko def pour que affaire yi amélioré tant que loolu amuñu conception euh, journalisme comme loolu dañu sonn. du ma ci bëri liggéey dinaa ci dellusiwaat ak yow parce que jéem naa ko. mais dinaa la woowaat euh, jëm ci cas boobu monsieur Ndiaye merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie.